boo seetee ni ñuy utiliser armes yi. nee na boo xoolee ni ñuy utiliser arm yi. ci biir gendarmerie ak police. ci biir gendarmerie ak police. lu ñu réglementé la. lu ñu réglementé la. bu manifestation ñii nga xam ne ñooy alkaati yi du ñu génn ak ay bal. nee na ñiy def bu manifestation amee ñii di alkaat yi du ñu génn ak ay bal. kenn ci ñoom la ñuy jox balu fetal yi kenn. kenn ci ñoom la ñuy jox balu fetal. ñi ci des ñëpp ay grenade la ñuy yor ak yeneen yoo xam ne pour. tiital nit ñi la waaye du reyaate nee na ñeneen ñi si des nag ñu jox leen ay grenade wala ñu jox ay balban yu nga xamante ni du reyaate moo tax su bal amee rek xam nañ kan moo ko tiire moo tax bu bal amee rek ñoom ñooñu xam nañu kan moo bu ñu bëggoon ubbi enquête léegi dinañu xam kan moo tiire bal parce que ñoom ñuy joxee bal bi benn boobu ñoom xam nañu donc suñu bëggoon def enquête bu nga xamante ni dëgg la ñu xam ni jiw mii la ñu jox bal léegi lan moo tax manifestation bu amee gis ngeen ni mu méttee woon Kër Massar Mbàkke la 16 février li fa amoon amul fenn Sénégal feneen ak feneen Saint-Louis mais pourquoi foo yëpp déggoo leen ñu ne tiire nañ fa bal pour rey nit pourquoi à chaque fois fii su ñu nee manifestation rek munu ñu tegle benn fan wala ñaar te neewuñu rey nañu nit Bignona pourquoi. nee na gis nañu foofu Mbàkke feneen ak feneen ak feneen manifestation yi am ñëpp gis nañu mais kenn mësul dégg ñu ne ci dëkk yooyu faat nañ fa kenn mais Bignona moom su manifestation amee partout ailleurs mun nañu dóor ay grenades lacrymogènes mun nañu jàpp ay nit présenté leen euh, justice mais néew na depuis mars deux mille vingt et ba léegi nga dégg ñu ne dóor nañ fa bal nit mais fii bi ñu mujjee manifester le 16 juin Idrissa Goudiaby à Ziguinchor Abdallah Diatta à Bignona ñu manifester waat ci mars bi ñu ne Korka Ba à Bignona parce que seen politique bu bees mooy ragal nañu ay bakkan rot ndax àdduna yëpp teg na leen bët gis ngeen rapport bu américain yi bind gis ngeen rapport bu union européenne bind waaye pourquoi niñ koy moyatoo feneen ak feneen bu dee Casamance bu dee Bignona moom mun nañu autorisé alkaati yi dóor ci suñuy doom dóor ci suñuy rakk ay bal waaw loolu yëpp di ko ñu xool ko manifestation yi day am fu nekk mais ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo jiite réew mi dañuy bañ ak yeneen dëkk yi nga xamante ni ñu ngi si bitim réew ñu xool li ñuy nekk di def léegi lu nëbbatu loolu ci yeneen réew ci yeneen région yi si Sénégal mais Ziguinchor moom Casamance moom bu fi tolloo rek moom déedéet nañu doy rek. moo tax may wax Macky sal ne ko lii dootuñu ko nangu. moo tax nag muy wax Macky Sall ne ko lii moom dootuñu ko nangu. ndax waaye juru korka bi toog. nee na waay juru korka bi toog nii ci wetam. ay rongañam di tuuru. ay rongañam di tuuru. moom Macky Sall gënu ko en tant que père de famille. moom mi nga xam ne mooy Macky Sall gënul ki toog ni di waajuru Korka en tant que borom doomam Amadou Sall bi nga xam ne tey mu ngi yor lu mu yor ci àll di dem fu ko neex te kenn attaqué wu ko kenn reyu ko gënul Korka mii nga xam ne rey nañ ko tey. doomu Macky Sall boobu nga xamante ni mooy Amadou di dem fu ko neex si monde bi di dem lu ko neex di yor alalu ak mbooloo mi di def lu ko neex si dëkk gënul doomu kii nga xamante ni moom moo génn tey moom lañu faat soxnaam moom Macky Sall gënul soxna si saw toog fii di nga xam ne mooy yaayu korka soxna Macky Sall gënul yaayu korka mi toog nii kon réew suñu buggee mu dox bu ñu buggee jàmm am fa kenn ku ne loo yéenewul sa bopp bu ko yéene sa morom nee na kon nag réew bu ñu bëggee jàmm am ci kenn ku ci nekk loo yéenewul sa moroom bu ko yéene sa bopp soo demee ci àdduna bi fu ne France gis ngeen manifestation yi fa amoon ñëpp xam nañ ni moo ëpp violence foofu te déggoo ñu ne dóor nañ fa nit bal balu fetal nee nañu gis nañu France manifestation yu rëy ñoo fa amoon mais lii nag moo taxoon ma wax ni nee lii moo taxoon moom mu wax nii gatsa gatsa bi ma koy wax nee na bi muy wax kàddu googu ñuy wax gatsa gatsa yu métti yi moo tax ma wax ko yu métti yii nag moo ko yóbbe woon ba mu wax kaddu googu te nag diine nangu ko. te diine nag nangu na loolu. diine dafa ne buñ la tooñee. nee na ne boo munee baale baaleel. soo munee baale baaleel. waaye boo munul baale na nga fayu lu tolloog liñ la def. boo munul baale nag fayul lu tolloog la def. an nafsu bi nafs la wax. nee na wax na ko ci alxuraan. nee na bakkan. nee na ci bakkan. ci bakkan. bëñ. bëñ ci bëñ. bët. bët. ci bët. loolu mooy gatsa gatsa. nee na loolu mooy gatsa gatsa ci ñi ko xamul. waxuñu leneen. nee waxul nag leneen. dañu ne. dafa ni. persécution bi nga xam ne am na. bundu xataal bi nga xamante ni ñu ngi koy ñi ngi tëj nit ñi. nit ñi. ñi ngi dóor nit ñi. ñi. ñi ngi gaañ nit ñi. ñi. ngi rey nit ñi. di nit ñi. am na limite am. am na limite. bu ñu atteindre limite boobu nag. bu ñu kenn ku nekk noo mën a waajalee sa bopp pour fayu di nga ko def. kenn ku ci nekk nag noo mën a waajalee sa bopp pour fayu di ko def. fayu bi nag bëri na forme. ñuy woo ñëpp nag. nee na ñu ngi woo ñëpp. jàmm la ñu wax. jàmm la wax. bu ñu buggee jàmm ci réew mi. bu ñu bëggee jàmm ci réew mi. bu mu amati korka ba. mu amati beneen korka bu ñu bëggee jàmm ci réew mi. jàmm ci réew mi. ñoom ni ñuy sàmmee seen njaboot. ñoom ñooñu ni ñuy sàmmee seen njaboot. jël alalu réew mi teg seen loxo njaboot. jël alalu réew mi yépp teg ko seen njaboot. ñu nekk ci ay avion di tukki. ñu nekk ci fu leen neex di tukki. dëkk ci ay palais. dëkk ci ay palais. buñ ko mënul defal yeneen jeunes yi. buñ ko mënul defal yeneen ndaw yi ci réew mi. nañu xam ni ñooñu am nañu les mêmes droits seen waajur am nañu les mêmes droits. mais nag xam ni ñooñu tamit am nañu les mêmes droits seen waajur yi am nañu les mêmes droits. suñu xol tooy na trop. nee na nag xol tooy na. te di wax nag bu kenn gëmloo Sénégalais yi. nee nag bu kenn gëmloo Sénégalais yi. rawatina ndaw ñi. rawatina ndaw yi. que lii ku ci nekk. ndax lii ku ci nekk. boo ci gé bu la ci yàlla jëlee. bu yàlla jëlee. da dem safara. da dem safara. loolu ku ko wax da nga wax sa bopp rek. ko wax da sa bopp rek. sa moo tooy rek moo tax ngay wax ndax nag. nee na ndax nag. diine gi kenn moomu ko. diine gi kenn moomu ñun de duñu ay imam. mu ngi ni ñun duñu ay imam waaye boo dajale woon cent imam ci Sénégal boo dajale woon cent imam ci ci kaw euh, àddina bi yoo dajale ci Sénégal nee na cent imam yoo dajale ci Sénégal am benn benn bu lay féddali ni loolu ñu wax dëgg la doo am benn imam bu lay wax ni loolu ñuy wax naan ku ci dee safara nga jëm am loo xam ne sax dañ koy bàyyil yàlla nee na dafa du nit mooy dugal nit safara du nit mooy dugal nit safara du nit mooy dugal nit àjjana kon. nee na kon nag. ñu ngi jéggalu ci guddaay wax bi. nee na ñu ngi jéggalu ci wax kàddu gi ni mu guddee. waxuñu waxu politique. waxuñu nag waxu politique. waaye li ñuy wax liy jëriñ réew mi la. liy jëriñ réew mi rek la ñuy wax. parce que nag egg nañ ci ligne ruus bi de. nee nag àgg nañu nag ci limite bi nag ci euh, bu xonk te li am feneen ak feneen mun na am senegal te lu am feneen ak feneen mun na am Sénégal. te ñaanuñu yàlla mu am Sénégal mais nag yàlla nag mu am Sénégal. kon ñu ngi leen di masaw bu baax. nee na famille mu ngi leen di masaw bu baax. di leen wax ni colère yi nga xam ne moo doxoon suñu diggante korka. nee na nag bi nga xamante ni moom moo doxoon suñu diggante korka. incha allah dinañ ko wéyaleeg waa kër gi. nee ko wéyaleeg waa kër gi. tey lañ koy gën a saxal sax. lañ koy gën a saxal. ndax amaana lii bu amuloon. nee xëy la lii bu amuloon. peut-être du ma gaaw a ñëw fii ci kër gi. du gaaw a ñëw waaye colère googu muy man muy ñi ma seqal parti bi nee na colère boobu muy moom mi toog ak ñi nga xamante ni ñoo toog ñu seq moom parti tey lañ koy gën a saxal suñu diggante ak waay juróom. tey la ñu gën diggante bi nga xamante moo tax seen diggante di gën a nag la jeunesse de Bignona. jeunesse Bignona bi yëpp nee na mu leen di gën a encouragé. ñun de amuñu seen fay. nee na nag kenn amul seen fay. seen taxawaay euh, c'est extraordinaire. nee na nag seen taxawaay c'est extraordinaire ñëpp di leen wax ni yaakaar gi ngeen am ba tax ngeen sonn ci. nee am ba tax ngeen sonn ci mbir mi. yéen ak jeunesse su Sénégal bi yëpp nag. yéen ak jeunesse Sénégal bi yëpp yëpp. léeg ma xaw a tooñ waa Bignona sax ne bu ngeen moytul waa Mbàkke romb na nag léeg leen bu ngeen moytul waa Mbàkke romb na leen léegi. yaakaar googu. nee na yaakaar googu. je je la promesse solennelle fii. nee maa ngi koy waat sama digganteeg sama borom. du ngeen ci musa am déception. dinañu def tout pour être pour vous rendre fiers d'avoir cru en nous. nee na nag dinañu def de sorte que delloo leen njukkal bu nga xamante ni moom leen war a kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum. nee na mu ngi leen di gërëm ñëpp. di leen sant bu baax a baax kilifa yeeg xale yi fi nekk ñëpp. ndax dëj bi du dëju góor gi jàll góor gi ba moom dong. nee na ndaxte dëj bii ñu ñëw. du gëju famille jàll ba rek ñi nga xamante ni moo fi ñoo fi toog du dëju waa Bignona kese du dëju waa Bignona rek waaye dëju waa yëpp la nee na dëj dëju waa Sénégal yëpp la ni ko senegal dundee ne ko ni ko Sénégal dundee dafa mel ni deuil national la dafa mel ni rek deuil national la moom la sax li ko waral nag nee na li ko waral mooy condition yi nga xam ne ci lañu ñu faatee Korkaba. nee li ko waral mooy condition bi nga xamante ni aji dem bi ni mu demee loolu daal moo ko waral. ndax dañ ko faat ci kaw mu ngi doon manifester. nee ndax ndaxte dañ ko faat ci kaw mu ngi doon manifester mu ngi doon ñaxtu. te li mu doon manifester di dëgg boo xam ne Sénégal yëpp xam nañ ko àdduna yëpp xam nañ ko. te li mu doon ñaxtu. Sénégal ñëpp xam nañ ni li mu doon ñaxtu dëgg la. mu àndoon ci nag ak ay milliers wala ay millions de jeunes di manifester. mu àndoon ci nag ay mbooloo mu takku takku takku ay moromam ñi nga xamante ni ay magam la ñëpp mbooloo mu takku ñëpp gis nañu. manifestation yi amoon fépp ci Sénégal. manifestation yooyu nag fépp la amoon ci Sénégal. amoon na Saint-Louis amoon na Tivaouane amoon na Thiès amoon na Kër Massar amoon na Pikine amoon na Dakar. amoon na Ziguinchor amoon na kawlax fépp daal ci Sénégal amoon na manifestation. manifestation yooyu lu mu amee woon fii si Bignona noonu la amee woon Ndar noonu la amee woon Tamba noonu la amee woon fépp nga xamante ni ci Sénégal nga bokk fépp la manifestation yi amoon ci Sénégal. waaye ñu seetlu nii à chaque fois su manifestation amee ci réew mi. waaye ci seetlu manifestation amee si réew mi rek. bu ñuy wax ni nit dee na ci rek fi ñuy njëkk a tudd mooy Bignona. bu ñuy wax ni nit dee na ci manifestation rek seetlu bi mooy Bignona la ñuy wax. allahu akbar takbir ñuy masawu suñu mbokk mi. nee na nag mu ngi masawu bu baax a baax a baax suñu mbokk mi toog. di masawu waa